kuréel gi nga xam ne moo di alalu maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall xëy moom moo leen ñor jaarale ko ci ki nga xam ne moom moo di xalifaam ñoo doon indi ci àllarba ji dëppoog le juin seeni xari tabaski yi nga xam ne at mu jot dañ koy jébbal xalifa général des Baye Fall. ren jii ñu jébbal am di Fall moom Serigne Modou Menda lu toll ci téeméeri xar ñu ñëw wàcce ko ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne moo nekkee ci ginnaaw janatul mahwa. la ilaha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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ginnaaw bi ñu wàccee mboolem xar yi ba wàññi leen dugal leen ci gétt gi ci la ñu dem ci sëriñ bi di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda leeral ko mboolem liggéey bi ci njiital jëwrin kuréel gi nga xam ne moo di alalu maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ Omar Seck général. sa njabootu bopp gi kat ñoo del si waatoon muy alali maam njiitul sëriñ Omar Seck muy général doon siyaare sëriñ bi. ñëw nag si ndigal lool yi nga xam ne eh, ndigal li yaa leen ko joxoon mu jëm si wàllu liggéey bi ngay taxawu si tabaski yi ñu amoon yéen ñu amoon ci yéene lool ñoom ñi nga xam ne ñoo ko séq ñëpp ñi nekk ci réew mi ak bitim réew amoon ci ab taxawaay nag lu jiitu koor ga doon ko saytu ba yàlla dogal nu agsi fii nu agsi eh, tey jii nag ñu ñëwoon ngir jébbale si lenn si liggéey bi da fekk ne lépp sax dajeegut ndax am na loo xam ne fan ko saytoo ak seegul Touba waaye jàppandi na ba noppi waaye nag lii nga xam ne moo fi newoon moom te jàppandi ñu ñëwoon tey ngir bëgg koo jébbal sëriñ bi xam naa loolu mi ngi toll si téeméeri xar waaw ànd nañ ko ba wàcce ko waaw ba e, dugal ko si biir wana bi xam naa si Omar am kàddu yu mu buggoon a jottali rek waaw su ko dee su àggalee nu mën ko jottali tontul sëriñ bi te di la ñaan nga yàgg fi loolu te wér eh, tey sàkk nga ñaanal ñu nga yàgg fi te wér yow dañ koy sàkk ci yow di wax ne alali Cheikh Rafal gépp ñu ñëwaat di yees laa seen jaayante ak seenu taalibe di jëblaat seen bopp te xam ne ñoom moomu ci seen bopp dara lépp yaay moom yaa yaa moom sa alal la eh, ni ko siñ daam waxee nag mat na sëkk boobu bañ jógee ci koor gi rek ca koor ga bañ ci jógee rek ca lañ ca dal na ci liggéey boobu ba yàlla def eh, ni mu ko waxee lii xeet féete woon fii ci boori Saloum sond bañ andi ko am lu war a jugaat fee ci boori Fouta waaye li jógee boori Saloum agsi na toll ci téeméeri xar eh, sa sàkkuñ ci dara du nga yàgg fi te ndax sa yàgg fi mooy suñu njariñ àdduna ak alaaxira ñu sàkkit képp koo xam ni dërëmam dugg na ci baa yéenam dugg na ci ba jëfam dugg ci mu am tawfiix àdduna ak alaaxira jëf ji na ñi ci fasal murit ba njëkk jébbalu ba bi mujj jébbalu murid bu njëkk a faatu ba kii mujj a faatu ndax jëfi Cheikh Fall attan na lu ne ñu ñaan ci doole Cheikh bi nag sa dund gi Cheikh Fall def ko dundug dundug malayka wérug malayka ak guddi fanu jinne ndax loolu rek mooy suñu njariñ xam nañ boo fi yàggee liñ bëgg Cheikh Fall lépp dana am ndax yoon wi indi nga ko foo xam ne ñëpp bég nañ ci wax naa ne murid yëpp gis nañ seen bopp ndax delloo nga murid yëpp ci liggéeyal Cheikh Fall ndax yaa woote liggéey Cheikh Fall pare jiitu ci ñëpp ku ñëw dara caa fekk waaye woote woo ko joxoñ ko ku ñuy dara jaa fekk ndax fekk ñëpp gis nañ liggéey bi ni ko fi nga ko teg kon ñu ngi sàkk na nga dooleel ñu ñun ñi xam ni jël nañ si lépp jox la ak ku nangu nga dooleel ñu sa kattan eh, ak ak sa tawfeex ji nga xam ne Cheikh Fall jox na la ko te ko ko kenn ba lépp loo bëgg ñu man ko ñu nekk ci réew mi bokk ci àll Cheikh Fall ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp ñi ngi ñaan xéewal yi naar yi ak tubaab bi yor day dayuñ ko dara nga béjj ko jox leen ko bañ mën la cee liggéey sa bëgg loolu képp la ñu ñaan ñu ñaan képp koo xam ni gis na vidéo yi ajoom faju àdduna ak alaxira ndax ñëpp am nañ yéene gis la te amuñu amuñu amuñu amuñu kàttanu agsi waaye ku gis ku la gis rek yàlla na ajoom faju ci wàkk bi liggéey Cheikh Fall bi jërëjëfati nun ñi jaxasoog ñoom nag te di xam ñoom fa nu teg liggéey bi nun xam nañ ñoom yéene ji ñu am ci sëriñ bi te li ci gën a yéeme mooy mboolem li ñuy jëf li nu ciy sàkku lenn rekk la mooy sag yàgg fi rek la ñuy sàkku ndax xam nañ ni sag yàgg fi mooy njariñul àddina bépp ku xam ak ku xamut ndax yaay jëmmi Cheikh ma Fall te li am njariñ lépp sunu borom da koo teg ci loxol sëñ Touba sëñ Touba jël ko teg ko ci loxol Cheikh Ibra loolu kenn nattablu ko li nu am du loo xam ne dañ leen koo may du lu ñu leen sarax lu nu jënd la jaayante ko ci njëggu lew njëggu mat sëkk dara desu si ndax danoo jaayante seenug dund lépp jox ko sëñ bi ba am ci lii nga xam ne moom la ñu am ñoom ñii nag dañuy ñoo xam ne li tax ñuy yokk ci kàddu yooyu danoo mat seere si seeni jëf ndax daa am lu bari luñ ci xam muy jëf joo xam ne àndul ak njistal àndul ak wanewu àndul ak puukarewu te dañ see def seen lépp nag desaluñ dara mooy jaayante dëgg li nu diggeek sëriñ bi dara desu si ndax amu si kenn koo xam ne kii ndigal li bu tàbbee si sab nopp amati nga jàmm lu dul ni nga jëfe ko rek te loo si jëf rek xem nga ko ndax boo sañoon yaay def lépp kon nag sëriñ bi ñaanal leen bu baax ñu am kattan guñu la liggéeyale ndax loolu rek mooy seenu bëgg ñi nekk si réew mi ak ñi ne bitim réew ñëpp nag ay jàmbaar lañ ndax ndigal lu agsi ci waxukaay yi dong lañ koy yaatal bu nu ko waxee ñëpp déggandoo ko waaye bu ñu ko waxee rek ñëpp daal di taxaw si loolee daal di war a am seenu bëgg mooy liggéeyal la rek ba nga yóbbu liggéey bi foo xam ne fii kenn mësu koo foog si àddina kenn mësu koo xalaat waaye nag ñu am si yow geneen yéene nag goo xam ne kii gu yéeme la mooy yéene ji ñu yéene si sa jëmm ji sëriñ Amdi Fall nga yàgg fi te wér loolu ñëpp dañu koy ñaan di ko fas waxtu wu ne ñi mën a jàng dañuy jàng ñi mën a tudd yàlla di tudd yàlla ñi nga xam ne seen jëf lañ am ñu koy ñu koy sàkku si jëf ju sell ji nga xam ne ñu ngi koy jëf jëmale ko si sëriñ bi di ñaan nga yàgg fi te wér bu la dara gàllankoor liggéey bii nga bëgg a liggéeyal sa maam ju baax ji si toolu sëñ tubaab bi yàlla defal la si lu kawe sa njor loo xam ne kenn mësu ko am si àddina la ma doon wax njarek ñëpp yéene nañ la ko ñëpp ndax sa lewet maye na ko cër yi nga xam ne nit ku baax dina ko am cër yooyu yëpp làq nga ko te taxul nga yëngutu taxul nga wanewu da nga ne dégg rek wax ni lii sag bëgg weesuwut bëgguk sëriñ Muntaxa rek muy bëgguk sëñ Tubaa jëfe ndigal yi rek mooy sag bëgg damaa waxoon njani dencoo dara te nun xam nañ si dara sakku sakkuloo sa bopp dara wutoo dara tabaxooy kër jëndoo ay daamar wutoo lenn sag bëgg mooy liggéeyal sëriñ bi rek lu ñëw nga jàllale ko si sëriñ bi loolu nag sab cëru bopp yaa ko moom waaye nag nun murit yii nag nga xam ne am na lu nu xam ci sëriñ bi ak doxin ñun it loola sunu mbégte la sunu tiitar la ndax sëñ Tuubaa li lim bëgg faw day am kon nag bu nu sañoon bokk si ñiy amal loole nga xam ne mooy bëggug sëñ Tuubaa gi te yow de li nga nekk mooy amal bëggug sëñ Tuubaa gi loola mooy sa itte mooy sa bëgg ñëpp nag seeral nañ la ko njabootug sëñ tubaa geek ak njabootug seerafaal gi nga bokkal ak taalibe yi ñëpp ay bëgg si yow bëgg si sa jëmm ji kon yàlla na nga fi yàgg te wér ni sëñ Omar wax rek jëf ji ah ñu ngi siy ñaan képp koo xam ni kii gis nga ko te bég si yàlla na sa borom def muy sa fajug aajo ku si bégul it yàlla na sa borom xéer la si nga bég si ndax njariñ la loo xam ne ñëpp mën nañ koo jariñoo ku xam ku xamut ku xamoon nag danga jubal si tabbi si biir liggéey bii waaye nag yàlla moo def noonu àdduna bokkul xamal ñëpp rek waaye nag lii na si ñëpp jaar dimbali doon mu doon dimbalul ñëpp rek ba réew mi li nga ci bëgg nga am ko ndax boo ko amee rek àddina bépp dana yéwén ni ko sëñ bu bëgg dana amee noona ñu ngi nii nag faal sa kanam toogal fi mboolem alali Cheikh Ibra bu kenn rek ñëwoon day doy sëkk waaye ñoom ñii fi teew bennoo nañ bennoo goo xam ne gii kenn ku ci ñëwoon teew mel na nit ñëpp teew nañ moom mii teew doyloo nañ ko ñoom ñëpp li nu koy jox seetuñu ko xooluñu ko saytuwuñ ko ndax xam nañ ne luñ ko jox mu indi jox ko sëriñ bi kon nag Fall loola nun dañ ko doon seere am di Fall moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne moom mooy xalif général des bay Fall sant na bu baax a baax cant gu kawe kuréel gi nga xam ne moom moo di alalu Cheikh ma Fall ci seenug Pastef ak jëf ji nga xam ne ñu ngi koy def saa ne ci kër xalifa général des bay Fall muy jëf joo xam ne saasu ne dañ koy gën a yokku amin fa amin waaw amin fa amin amin fa waaw Fall jërëjëf Fall ah waaw na lool de wala Fall jërëjëfati. nee na liggéeyal Cheikh Fall moom. nee na Cheikh moom su ko jaaxal ki ki deful dara. waaw ah, waaye nee na ku ko liggéeyal mu fay la. waaw doo jaaxal mooy ki jëfut waaye ku jëfut dina la fay loola kon nun nun loola nun ñun génn nañ ci ndax ñu ngi si jëf waaw ah, kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin ndax ku jëful doo dégg jaajëf moom ku ko dégg rek da ngaa jëf. te nag dégg ngeen jaajëf ba tey te déggaat ngeen ko tey nag tant ngeen dégg ko nag da ngeen a jëf ndax sëriñ bi kat dara muurul bëtam dara muurul bëtam lu dul dëgg rek ak jëmmi Cheikh Rafal bi te waxtu bu ngeen fi ñëwee jëf mu sant leen rek xam leen ni Cheikh Rafal rek a leen sant ndax mooy jëmmi maam Cheikh Rafal te Cheikh Rafal dañ na si ak réer wala lu nuroog moom kon nag seen jëf jii nga xam ne sëriñ bi nangul na leen ko du lu yomb ndax dañ ne jëf moom lu mu rëy na si ndigal bu la ko digalee nga jëfe na ko sëriñ bi bëggee bu la sëriñ bi santee gërëm la loolee daal di doon njariñ lu lay topp àddina ba àllaaxira yéen nag lu ngeen jëfal sëriñ bi rek sëriñ bi sant na leen gërëm na leen si te bëgg na si kon nag mu xel yi na dal bu baax sëñ bi daal nee na lu mu leen di ñaanal mooy ngeen am fan gudd lool ngeen wér lool ngeen jëkku ndigal yi mu ngeen ko bëggee te di ko jëfal sëriñ bi barkeb suñ doo ak seeram waaw moom ak bëggam mooy loolu mooy na ngeen fi yàgg te wér dañu yàgg ànd ak moom liggéey bii yóbbu ko foo xam ne fii kenn mësu koo xalaat loola sëriñ bi bëgg na si te waxtu wu ne mu di ko seere si yéen la ngeen wax ak moom nag xam na ni dëgg la ndax seen jëf wuutewul ak seeni wax la ngeen waxoon joxe ga ngeen joxe woon seen bopp xamal ko ne ko yow liggéey seere Fall dogg lañ fi nekkal sa ndigal rek la ñuy déglu loola waxtu wu ne seen jëfa ngi koy seere ñu ngi koy mandargaal te loolu sëriñ bee ko xamal di ko waxal boppam saa su ne kon nag yéen alali seere ñëpp nag góor ak jigéen ñu ne si réew mi ak ñu ne bitim réew xam leen ni bii ngeen nekk di ko liggéey seere Fall seere Fall la ngi nii toog te nangul na leen ko kon nag nañ gën a jaajuwaat rek gën a góorgóorluwaat xam ne liggéey bi moom yoon la wu sori lëngoo amu si aw yoon mm-hmm. nañ ko teg rek ci liggéeyal Cheikh Fall mm-hmm. bañ see dugal dara mm-hmm. ba ngeen ko teg ba mu agsi fii baax na sëñ bi nangul na leen ko duñ ci dugal dara na wéy rek day gën a baax sëriñ bi yàgg fi lool ñu yàgg fee ñëw yàgg fee fekk yàgg koo jox suñu addiyeen mu yàgg nu ko nangul barke maam Cheikh Ibrahima Fall li sëñ bi bëgg daal képp ku taxaw ba mu am sam xel war naa dal xam ni sëriñ bi daal la defal la nga bëgg wala mu defal la la gën si yow nag sëñ bi sant na leen gërëm na leen liggéey bii nag yàlla na daañu leen dellu si waat fii déwén na. ngeen indiwaat liggéey bu ëpp bii. amiin fekk fi sëriñ bii. tegaat ko si loxoom. mu waxaat wax ju ji mu wax. amiin amiin waaw waaw waaw waaw ba mu yàgg lool rek. bu ñu si amee dara daal. ñu ngi ñaar si doole Cheikh Rafal. yàlla doon ak yàggam. amiin amiin ñu ñu dogoon nag si kan sëriñ bi. duñu wax si kanamu sëriñ bi. waaye jëf ji ñun xam nañ jëf ji. fa tàmbalee ba ak si fii. ndax am na lu bari réeroowuñ si waaye waaye xam nañ yéene sëriñ Amdi Fall ñii tamit si taalibe yi ak jàmm wallaahi la asim waaw ñëpp la ñeewante billaahi barke sëriñ Tuubaa waaye xam na ni mm-hmm. kenn mënta jariñu loolu nga jëf mm-hmm. moom lay wax léegi mm-hmm. nee na ki jëf ki jëful moo ko jaaxal waaye ku jëf da nga jariñ danañ la faj kon nag loola rek mooy yoon nit nag boo ko bëggee dimbali da nga koy teg si yoon boobu ñu amee ndimbal waaye nun de dañuy dogg si barkeb Cheikh Rafal si barkeb moom mii ak ña ko jiitu woon ay magam ak wajuram bu nu amee dara si Cheikh Ibra Fall yàlla na ko suñu borom def ak gudd fanam mu yàgg fi lool sama borom roof ko kattan aw wér ndax ñëpp bëgg si moom mbégum jaan ñëpp la mbégum àddina bépp la ñëpp d'accord si sëñ am wóoru yàlla na borom def na fi yàgg fi bu amee rek lépp dana baax te àddina ak àllaaxira nag waaw danañ dund lu yàgg ànd ak moom te ëllëg it day gën a neex ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum kuréel gi nga xam ne moom moo di alalu Cheikh Ibrahima Fall téeméeri xar yi nga xam ne moom la jébbal sëriñ bi du ci yem ndax nee ñu am nañ yeneen xar yoo xam ne ñu koy fàggu te daañu ko indil sëriñ bi liggéey bu rëy bi nag yàqul dara ci yeneen liggéey yi nga xam ne soobu nañ ci di ko liggéeyal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci dépense bi nga xam ne dundug weer wi la nga xam ne la 5 bu ne daañu ko indil xalif général des Baye Fall seen limub xaru tabaski yokk na bu baax a baax suñ ko méngaleeg daaw ndax daaw ci 2021 bi juróom benn fukki xar ak juróom benn lañ indi woon ren ji ñu yokk ba ci téeméer